Oh.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 yen ñi safo di sétane seen émission léra sa diine dellu si waat nañu ànd ak suñu xarit suñu soppe suñu sëriñ oustaz Babacar ndigen fas yéene waxtaan ak yéen ci beneen émission bu bees waaye di eggali li nga xam ne mooy plateau léra sa diine oustaz Babacar ñu ngi lay nuyu di la ziar. wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu taalibe Cheikh Kouate ñu ngi lay nuyu di la ziar. aoudu billahi assamii alim min chari cheytaani rajim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 sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi ajmaina wa man tabiahum bi ihsaani ila yawmi ddin rabbi srah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk jullit yi auditeur yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy suivre tabaarakallaahu ci diaspora bi ci àdduna bi yépp tey ñu feggoog suñu xarit tabaarakallaahu suñu soppe namoon ko loolu ci taxawaay bi rawatina ci émission Leral sa diine tabaarakallaahu ñu ñëwaat ak yéen comme ñu ko daan ñëwee rek di ñaan ci yàlla ñu duggee ci bismillah génne ci alhamdulilahi bismillah alhamdulilahi rabil alamin oustaz Babacar eh, dugg bi am na solo tabaarakallaahu mu mel ni Leral sa diine eh, ñu koy fàttali ñi nga xam ni ñu ngi doog dugg ci émission bi duñu ñu suivre dafa nekk émission boo xam ne ñaari pàcc la eh, dinañu nafar li nga xam ni mooy téere boobu nga xam ni Euh, làq jëriñu la ma ngi ute tuddee ko waaye ñu xamee ko ci Laxdari euh, ustaas nag ci lay waxtaane baaxe ko mbokku taalibe yi baaxe ko mbokku jullit yi waaye ñaareelu pàcc bi nag dañuy dugg ci laaj yoo xam ne dikk nañ fi euh, ñu ñi woo téléphone ñu ko jox incha allahu rabbi ustaas mën kee leeral kem kàttanam luñ ci amul ñu denc ko ba beneen émission ñu indi ko ustaas yaa ngi ci Laxdari commencé ko waxtaane ko macha allah. Euh, daf mel daa nga am ci buntu bee waaj a dugg. waaw fa tabaarakallaahu comme ni nga ko waxee rek xam nga àdduna moom c'est la continuité ni ko tubaab di waxee. Mm-hmm. maanaam bis bu ne leçon la ak jàng. Mm-hmm. waaye nag daam ñaar yu am mooy dërsul xalil almul kasir. Mm-hmm. dañu fa wax ni leçon bu ndaw. moo ëpp njariñ nit mën koo gën a jàpp nga jox ko leçon bu bari te du mën a jàpp lépp kon bu ko defee daam fu ñu toll ci téere bi nga wax muy làq jariñu di al axdari téere bu am njariñ ñu tolloon ci nag taw ba muy tuub nga xamante ni dañoo nekk ci jamono joo xamante ni kenn ku nekk ci ñun daa war a tuub delluwaat ci yàlla ginnaaw yàlla dañoo bind ñu tudd al insaan te matuñu te nul n'est parfait dans la vie kon kuy muy yow muy man jàmbaar amu fi ku yàlla jàppale rek a fi am kon tuub moo ñu war ndax ñun mënuñoo ñàkk def bàkkaar muy man yow mi ñuy déglu yow mi ñu toogal ak yow mi nga xamante ne yaa ngi ñuy bàyyi xel léegi nag nan la ñuy def ba yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar ñu dem ci biir al axdari dafa wax ne wa taw ba charte tuub maanaam loo gis daa am charte ci lépp loo gis kiy wax sax daa am charte yu mu war a waxee ndax inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa naziran yàlla dafa yebal yonent bi ne ko waxal ak gaañi mais booy wax daa am ñaari côté yooyu waxee benn bi da ngay tàngal mais benn bi da ngay seral ñi ngay waxalit daa am ñooy waxeek ñoom yenn saa yi daa am koo xamante ni ci tàngal bi nga mën a wax ak moom ndax mu mën a gëm ndax moom foog tàngaloo rek du gëm am na koo xam ne déedéet ci bégalaate bi ci ni ngay def ba bëgg yonent bi waaw nan ngay def ba xam li encouragé ko ci li muy def parce que bëgg na ko xam li muy def lan la kooku nga bégal ko day tax na moom mu gën a jàpp ne li mu wax noonu la léegi nag yàlla di wax ne wa shurutu ba ci lax laxdari muy charti tuub tout nak boko ko moy toujours ki def lu neexul yalla ki juum ginaaw nak mato bu juum amé rek kon da nga waru da nga waru a jubbantiku moo tax yonent bi saa salaam daan wax ni ci haditham ba ne jamono dana ñew nit farté juróom ba paré bëgg juróom té juróom boko bokay faral di def da nga wara bayiko xel beneen bokku na ci moy lan képp kuy faral di def lu neexul yalla muy moy yalla da nga wara bàyyi xel toujours di tuub di delluwaat ci yàlla léegi nag mu ne nag tuub boobu nan ngay def ba tuub mu ne lan surutu ba charte tuub benn bi ci njëkk mooy ak nadam foog nga rëccu rëccu nag ci xol lañ koy def da ngay def dara toog xalaat ko waaw la borom téere ba wax i'tazil wax ni boo bul fàttaliku loo def bàkkaar ba pare di ci bànneexu boo ko bànneexu rek yow sa tuub dafa goo ko foog nga mettit lu ko moo tax yonent bi boo demee ci téere bu ñu naan muxtaaru xadis dane nan la nit yëgee nit yàlla jéggal na koy bàkkaaram mais mooy mu toog ba fàttaliku bàkkaar ba xolam metti ne bu démb doon tey duma ko def mu ne heure boo yëgee ne ne wax ne bu bu démb doon tey duma ko def rek yàlla jéggal na la bàkkaar ba moo tax am nandamu nga rëccu léegi nag lan ngay rëccu alaamaa faata ci li la weesu kon li la weesu ci ngay def loo neexul yàlla ak ci ngay def lu neex yàlla loolu nag ngay rëccu génn ca bañ caa dellu beneen bi ci des mooy ngi yéene ko boo yéene nag lan nga yéene mu ne na alaa yaawda dootoo ci dellu kon bari na koo xam ne tuub na waaye tuub bi daa daa delluwaat nag nañu xamante dëgg waaw bari na gaa ñi moo xamante ne da ngay gis mu damaa tuub delluwaat waaye tuuboo parce que tuub boo tuub rek yow da ngaa war a dellu te boo delloo war a coo delluwaat moo tax dañuy faral di wax ni taal boo fekk boo xam ne doom la xamoo ndax am na xal wala amul xal nga teg ca tànk boo ko tegee mu ne tëb nga may des na tëbit moo ne nag doo tegaat sa tànk ndax wóor na ni boo ko tegaatee danga nga lakk tuub nag noonu la war a def ci doomu aadama kon alaa yaxuda doo dellu ilaa dambihi jëm ca bàkkaar ba waaye nag jëm ci bàkkaar daa am benn côté bu mu nekkee mm-hmm. moo tax suñu boroom ne ak taw ba nasuuxa waaw ila allah tawbatan nasuha booy tub dañuy tub way tub bo xamanteni nak ni bo xamanteni ni bu wér la bari na ño xamanteni ni ji dañu wax ni dañu tub mais tuubuñu def nañ ko way ño nga wat nekkaat ca parce que lutax tub ba kon wérul léegi nak boko ko ba pare nak li dess ci sa dund la nga defoon dootoo ko defat motax mu ne fi ma baxiya fi ma ci la nga xamanteni defon nga ko ci bakar baxiya mu dess fi umrihi ci sa dund kon do defati bakar kon gàtt na waaye mbokk yi li len ci wax moy kep ko xamante ni ngi tuub jëm ci yàlla lépp loo defoon waratoo delluwaat ca boo ci waté rek bo waxé ni tuub nga tuubo kon nak ñun ñepp nañ ko bayyi xel ni li yalla wax ni tuubu allah tawbatan nasuha booy tuub na nga tuub jëm ci yalla waye nak tuub gën a ndax it wax yomb na waye mo am solo kon bu ko defé rek tabarakallah foofu la ñuy teg suñu baaraam mbokk jullit yi incha allah beneen yoon ñu gën koo continuer ci kàttanu yàlla ñu doog a ñëw nag ci question yi ak réponse yi ci kàttanu yàlla taalibe cheikh macha allah fa tabarakallahu oustaz Babacar leer na eh, tuuba ngoog moo xam ni eh, ni ko tubaab yi jàngale eh, gom la rek loo war a effacer waaw comme loo xam ne boo ko effacer daa baaxul moo tax nga effacer ko tuuba ngoog rëcc bi na dëggu ci ñun loolu oustaz jàngale incha allah dina ci gën a dëggu ne ci gën a dellu si incha allahu rabbi kon boo ko jamono lënt na eh, jaxasoo na eh, li ñuy tooñ bari na ustaas eh, li ñuy juum bari na waaye tuub rek moo fi ne moo ñu ko mën a jàppale kon boog ñu tuub fa tabarakallahu ñu ngi dugg ci ñaareelu pàcc bi muy ay laaj yoo xam ne dafay egsi ustaas kii dafay laaj bi mu nekkee xale hmm, dañ koo maye ay waajuram dañu waxtaan ak wayjur ki ñu koy may waxtaan bu jubóog moom daal di koy may booba xale la sans laaj ko avim waaye bi mu nekkee màgg nag xale bu jigéen bi màgg euh, ba ràññee ba xam ñu ne ko nag ah maye woon nañ la sëy moo ci des moom yëgul fu ñu ko mayee euh, muy laaj euh, lan la ci islaam ndax ndax kañ koy may wax dëgg yàlla bëgg ko te mosu koo xam te bëggul sëy boobu itam waaye fekk na waajur may nañ ba noppi lan mooy àtte bi ci islam. waaw fa tabaarakallaahu posé nga question bu am solo mu ëmb lu bari ci jamono ji ñu jëm ndax xam naa ne tabaarakallaahu sharia am na lu mu nangu waaye am na lu sharia nanguwul d'abord xale bu ndaw deesu ko maye xale bu ndaw deesu ko maye mais nag jànq dees koy maye xale lañ dul maye mais jànq dees koy maye jànq nag mooy ki nga xamante ni musta sëy léegi nak da am keneen koo xamanteni nak nag moom du jànq yaa ngi dégg baat bi sax ñu baal ma ci moom la ñuy faral di wax ni koo xamanteni dafa sëy ba tas baat ba sax laay bañ a tudd comme ni nga waxee mooy moom la ñuy faral di wax caga bu fekkee da ngaa jàng ci sharia la ñuy wax. Mm-hmm. waaye mais bu dee baat boobu nag duñ ko faral di ko waxee ñooñu. Mm-hmm. ñett ñooñu bu amee ki tuuti te demagul fenn amagul xel amagul âge mayewuñ la woo ko beneen bi ci des bu dee jànq la kilifa mën na ko maye ndax jamono benen bi ci dess tabarakallah moy ki nga xamanteni da sey ba tas koku mom kenn du ko maye lulul dafa am accordam dafa am accordam koku dang koy laaj ndax bëgg nga bu dee la bëgguma do ko maye mais xalé bi nak bu la am nga droit maye ko ndax jamono ni mu tëree ñu fatlikou touti rek Euh, kii di Aïcha bàyyil xel ne bu baax yonent bi saa sallam dañ koo teel a maye à l'âge de 9 moom dugg na ci néegu sëy 9 ans kon attention. kon attention léegi xale yi ñu toll ci jamono ji nga baal ma waaye xale bu ci am fukki at ak ñaar boo moytuwul rek tabaarakallaahu toll na sax la la tolloon ci ndeyam toll ko. xale yi léegi macha allah ndax yu bari dañ ko daan tere benn bi mooy sa sa sa sëru yaay sëru mag xale daanu ko def mais léegi xale yi lan la ñuy def moo tax xale bu kay da ngay gis xale bu am 12 ans la am di gis mbaax te fu xale bu amee gis mbaax jeex na mën naa am doom mën naa ëmb beneen bi ci des muy phénomène bu doy xale yi léegi yi ñuy sol. seen yaram yi gaaw naa génn na ma na ma yàlla baal seen dënn yeeg seen kii gaaw nañoo màgg ba da leen di gis tabaarakallaahu bu yooyu génnee xale bi danga yaakaar ni mag la nga maye ko fekk na nga ko maye baaxul kon bu dee xale bu ndaw charia nee na bu ko maye bu dee jànq la sañ nañ koo maye bu fekkente ni yaa ngi ragal comme ni jamono jii ñu toll xale yi nga xamante ni ku leen bàyyi ñu dem taxawaalu ji mooy ci yàlla kon mën nga koo maye. benen bi ci des nak budi ku jigen la nak ko xamanteni nak musna mus koku sëy ko muy mukk ta amo accord hmm kon nak ñetti pàcc la da ngay xam nak définir mom ban côté la la tolloon budé dafa nekkon xalé bo xamanteni ni jank koku mom maye bi daganul dañ koy firi bu fekkente ni nag kooko la yalla def mu mag ta xarafagul mm-hmm. xarafagul ci waji ne dañuy tassé bi digënté ba mu tok diko xaar ba ba mag dikku ko ci kon kooku bu ko neexee sëy ba ñu tas ko mais bu fekkante ne nag koo xam ne mus naa sëy bu dee maa bañ la ñu ñëw may ko gisul ñu ko may mu ñëw xam ni kooku bugg ko sëy ba day tas ñetti pàcc la. waaw kon boog ñetti pàccaangoo oustaz kii da di mbooloo moo xam ni eh, dañuy ñëw ci benn jàkka moo xam dafa am événement bu ñu fa war a def maanaam eh, ñu war faa taq sëy bi ñu yegsi ci jàkka ji fekk waa jàkka jaa ngi julli seen julli mbooloo. ñoom ñu nekk mbooloo waaye gis ñu lu dul ñu la seen basan lal seen mbooloo di julli e, ñuy laaj lan la ci islaam am wax ndax jàkk jaa ngi julli seen wet ñoom tam ñu la seen mbooloo di julli waaw. fa tabaarakallaahu waaw loolu d'abord julli julli mbooloo e, d'abord moo ngi jugee ci keroog bi yonent bi riñaanee c'est très important bi mu ñëwee dafa gis benn ordre bu garaaw ndax dafa gis malaaka yi. ñu ranger ranger bu rafet yaa ngi dëkk ñu ne waa déet yonent yëpp dajaloo. Mm-hmm. ñu def ran taxaw. Mm-hmm. keroog yenent bi julli na fa ñaari ràkka mm-hmm. muy subhaanallazi asra bi abdihi layla min al masjid al xaami ila al masjid al aqsa keroog bi mu ko gisee nag bi mu wàccee moom yenent bi ba jël julli indi ko la ne nañ julli ci mbooloo ndax boo ko jullee am ñaar fukk ak juróom-ñaar boo demee ci téere bi naan buxiya dang ko ca fek ñaar fuk ak juroom ñaar ci yool yow mi julli ca jakka ja bu dee ca kër ga mu am benn moo ngi mel ni kuy fayeeku vingt sept mille par mois at koo xamante ni mille franc lay fayeeku kon ku jullee ci kër gi mille franc ki demee ca kër ga vingt sept mille lay kon bokkul léegi nag daa ñëw mbooloo fekk si mbooloo léegi nag ñoom ñu ñëw li gën mooy bu ñu ñëwee bokk la ñuy julli ndax yenn saa yi day am ndax mën ngaa ñëw ci mariage yow nga tardé tisbaar ñëw ci jàkka ji ngeen ànd julleendoo te xamoo li xew bu ñu laajtee ñoom fekk tisbaar la ñuy julli kon ñooñu mën nañoo julli seen julli bopp bu fekkente ni nag ñoom tàkkusaan la comme seen moroom yi bu ñu ñëwee kon li leen war mooy ñu ànd ak ci ginnaaw imaam ndax a jamaatu rahma li ñoo fait la force waaye nag am na benn sew-sew bu am bu ñu ñëwee fekk imaam julli ba pare pour ma dolli la ci imaam julli ba pare ñoom ñu ñëw waru julli te fekk jàkka ja lan la ci ngiiru imam Malik wax ndax ñoom bu ñu ñëwee mënuñoo julli seen julli mbooloo parce que imaam julli na ba pare ñu ne déedéet pour bañ a am coow am pour organisation am dañ leen di digal ne leen képp ku ñëw ci jàkka ji ne julli julli boppam ku ku nekk ci jàkka ji ne julli julli boppam mënu leen ko génn leen ba ci biti ngeen dajaloo julli fa seen julli mais jàkka ji moom bu imaam bi jullee ba pare jeex na organisation benn la fi benn wax la wax nañ ko benn jëf jëf nañ ko kenn dootul julli ci biir. macha allah macha allah kooku njàngale bu am solo la njàngale bu am solo la kon mbokk yi ñëw ko déggandoo oustaz eh, laaj wi kii da koy laaj eh, muy xale boo xam ni eh, dafa tudd soxna Ulay maanaam dañuy ñëw di ko maye waaye ka koy may di ka koy ñaan si di Moussa. Moussa can nga matul ndax fayekuwul weer muy laaj ndax mën naa leb can gi ñu may ko jabaram ba weer wi dee muy doo ko joxe can gi waaw fa tabaarakallaahu foofu daa am wax yu bare yu ci am waaye li gën a am mooy fu sëy di am can day teew fu sëy di am seede day am déggal wax ci bu baax fu sëy di am xudd ba day am ndax yuy yépp pour mu am la ndax foog beneen bi ci foog mu am seede lu tax seede bi muy ñoom ñaar ulay buñ ko fekkee du xule ca biir néeg ba kenn du ne leen déet ndax man fekke naa ni kat ñii bañ leen may ca jàkka ja fekke naa ko bu ñu demee ca auberge ba ñoom ñaar def fa seen lune de miel te yëguloo nga woote téléphone ñu ne laa ah, maye nañ ko yaa ko yëgul woon ndax dangaa tukki kon seede pour moytu mooy yàlla la can gi pour ndaw si pour wan ne ko liñ naan ku ku ku ku lepp ni ñu ko waxee ku ku ku ku lepp xaw ma lan tëdd pont ku ku laaj avance tëdd pont noonu la demee buñ la ko joxee nga lekk ko muy wane ne yow bis ni ki tey xamal ne yow yaa ngi ci yeneeni loxo moo tax can sax ndey du ko lekk bàyyi du ko lekk kuñ ko bàyyi la duñ ko lekk ki nga xamante ni moom la ñu takk moom moom ñaari junni ya moko wara lekkal bopam ba mu jeex ñen ñi nak ma ngi dañ lay faral di wax jënd ci benn yéré bu baax bo démé ba jaaxlé nga japp ba sellu wala nga sangu farata talal loxo ñaan yalla nenañ lolu xaaliss bobu nga ci jënd lo ci ñaan yalla ci sa biir sey yalla da koy barkel légui nak cyan gogu ci bopam dana am mais mais am na xamanteni xamante amagul monogul aliyun jasi lo joxewon woon ma fatima te Fatima doomu Seydina Mohamed la jaas yi la joxe woon parce que amul woon kon mën nañ cee wax ba consensus ñoom bu ñu d'accordee rek amul problème mën nañ koo maye ndax kat dañuy ragal ñoom ñaar ñu jot miinante mooy yàlla jaar fa. moo tax bari na sëy yu am sharia di ko maye leen na taxul lu dul ngir ñu mën a ragal mooy yàlla moo tax du affaire xeet. nañ ko moytu kii géwél la kii géer la déedéet bu ñu bëggantee te ñu miinante ndax damay faral di wax ni am na miinante boo xamante ne ñaari nit bu ñu ko miinantee fi fini julli tubaab booboo nga may leen bu dul loolu la xew dana xewaat lu xewaatoon dana xewaat kon nag li am solo mooy ñu consensus bu ñu d'accord ne bu ñu paree mu indi ko terewul it wàññiwul dara loolu sharia nangu na ko. macha allah sharia nangu na ko euh, oustaz laaj bi kii dafa di euh, xale bu ñuy wax Cheikh Fall. Euh, ku ñuy wax monsieur ameel ko bor euh, ñu waxtaan bu juboo ci bor bi mu ne ko weer wi deewee bis sàngam dinaa la fay euh, bis sàngam jot fayu ko mu ne nag moom mënu koo baal te mënatul muñ ndax sharia ustaas may na ko mu dem ci yoon yóbbu ko porter plainte wala nan la ko islam diggal ci la ci diggante boobu. koy d' abord Cheikh mi leble d' leble daa am ay conditions. ak ko meuna lebal bu demé tribunal sax ci tuba bi am na waxuma lak sharia sharia ko ndiek moy dabar koy lebal da am seede bu amul seede rek yow ben def nga erreur motax kep képp ku lay lebal yaa ngi dégg utal seede bu dee seede newul ci nit na don papier motax da ngay gis ñu ne nit genn na aduna ñu tek ko ñu ne ka amel. at ku mu ameel ndax yonent bi nee na daanul jullee koo xam ne ku ñu ameel la wala koo ameel ndax nee na fekk waxoo loolu moom yonent bi nee na du la jullee kon nga xam ni seede dafa am solo léegi nag moom labal na ko ba ñu wax te ñuy wax waxi gor mu jël ko jox ko heure ba waxu ko kooku am na droit waxuma la sax dem tribunal waaye dem ba ca yàlla bind fa fëyeem jox ko ndax mu fay ko mm. muy ci nasaraan muy ci diine sharia bu demee ci imaam wax ak moom waxal ak moom mu jox ko délai waaye bu wóoree ne nag waa ji xam na ni amagul da koy joxaat beneen dele bu fekkente ni nag waa ji am na ko moo ko nangut a jox kon bu ko neexee mu jaar ci yoon jaar fa ko lislaam may mu dox ko ci xaalam ci nii wala ci na kon daal yoon la mu dem ndax moo ko ameel pour mu dem ci moom bu fekkente ni waxtaan nañ ba juboo moom nanguwu koo jox ci loolu fa tabarakallahu oustaz laaj gu mujj bii rek xanaa la ñuy daanalee eh, kii dafa nekk benn waay joo xam ñu koy wax Modou eh, Modou moom eh, tayal ni man rek daal di tukki war faa am ñaar fukki fan ak benn walla lu ko ëpp waaye egg rek ne ñetti fan yi moom da koy wàññi yu njëkk yi ndax loolu ko islaam sant ñu mu ko déggee wàññi wàññi wàññi wàññi wàññi ba ñetti fan ya mat mu nee na day doog a mottali nag julli ji ci lañ ko xamal nag ni ko du noonu ndax euh, bu la wóoree nii da ngay romb ñetti fan yi doo wàññi mu ne nag moom ñetti fan yooyu nga xam ne wàññi na ko nan lay fexe ba dabu ko ci wàllu islam. ah nan la koy dabaatale waa dabaarakalaaw xam nga wàññi lu garaaw la xam nga ñu bari ñoo ngi wax nan wàññi wàññi wàññi mais wàññi daa am charte gis nga tuub ni ma amee charte noonu la gis nga d'abord bu dee da war a wàññi foo nga yéene ko hmm. waaw ba pare daa am départ am arrivé. yow mi dëkk ci dëkk bi tey jii par exemple Thiès Thiès bu dee Thiès la gis nga bu la yàlla natoo nga passé garage garage u Thiès jeex na da ngay commencé wàññi yow mi dëkk Thiès bu fekkente ni da nga dëkk ci àll ba comme ulay dëkk ca ca ca biir fuuta ca ngod ma comme ni ko gaañu di waxe nga dëkk ci àll bi nga xamante ni ay dëkk dëkkaan la moom bis bu génnee kër bi këram rek maanaam li wër li wër làkk bi bu ko génnee rek village bi bu génnee buntu këram rek day commencé wàññi moo tax bokkul te loolu yëpp da nga koy yéene xam nga yenn saa yi nit voyage dem ba pare bu demee bëti ci naa teere damay wàññi ah pourtant wax nga dëgg yow dañoo war a wàññi kooku du wàññi yow mi xalaatoon wàññi ci yoon bi ne da nga fay def nangam yaay wàññi waaye moom du wàññi moo tax da nga koy yéene avant ngay dem. beneen bi ci des lu tax yéene bi am solo parce que mooy orienté li ci des ndax bi ngay génnee ñu ne yow da faa war a def vingt et jours jeex na vingt et jours yi ngay def vingt et jours yi ngay def bàyyil xel ni amul trois jours amul quatre jours yow da ngay julli normal parce que yow nekkatoo musaafar boo xam ne voyageur la buur def fa ñetti fan ndax coono yi nga fay am ci ñetti fan yi la ñuy bañ nga bañ a jullee ñàkk ba ñu jullee normal bu ko weesoo nag yow nga dem julli ko comme li xissa bi am kooku danga koy fay te booy fay dangay ngay fay ñetti yooyu te boo koy fay yaa ngi koy fayee fay boo xam ne fay bu mat la moo ngi mel ni voyagé woo ndax bul fàtte ni juróomi julli yi ñetti yi daam ñett yoo xamante ni dañu koy ñàkk wàññi ndax impair yi lañ dul wàññi mais pair yi la ñuy wàññi geewe tàkkusaan ak tisbaar ñett yooyu dañ koy wàññi def ko deux wàññi ko léegi nag bu fekkente ne moom daa def erreur day matal mel ni moom bor ba mu amee woon comme la lax dari waxoon booy fay te tukkiwuloo da ngay fay ci ñàkk tukki

wuute am na ci waaye bu dee ngiiru imaam Malik li ngay jàngale boo ko de jàngee ci commencé ndax foofu ñoo ngi koy commencé jàngale ci ci ci muqaddima jëm kaw muqaddima risaala misbaax doogu dugg xalil yooyu yëpp li ñu tënk li ci ëpp 48 kilomètres la 48 boo distance bi ngay dem kon ndakaar gi 70 kilomètres la kon da ngay wàññi mais bu dee Pout nga jëm doo wàññi waaye yaay ci kaw nga yéene. ni ma ngi dem Dakar. fas na naa wàññi. ndax charte bi ci nekk tax mu amul amul 48 dong de yene bi mooy jiitu nga xam ne yow da ngay dawul ëpp 40 bu dee ndar la jarul yéene ndax cent et quelques kilomètres ku koy def c'est trop dur te bala nga koo xam ngay tukki fu sori fu mel Casamance ci ngay ne wàññi rek moo gën parce que loolu l'islam kon 48 kilomètres ci la ñuy wàññee mais da ngay ba pare xam ñaata fan nga fay def tey jii benn ma ma jox la benn bu graaw tey jii bu la wóor ni trois jours nga fay def nga ñëw di régler benn papier ñu ne bis bu ne ñu naan la suba bis bu ne da ngay wàññi boo fa defoon un an da ngay trois jours nga fa war a def trois jours nga fa war a def nga dem ñu ne la papier bi suba ginnaaw suba suba ginnaaw suba suba nga toog fa un bis bu ne yow booy julli sa julli yooyu. ñaari rakka ngay julli ba koro nga jot sa papier parce que ndax du sa coobare ndax yow trois jours nga wóoroon ni moom nga fa war a def waaw sax ci tëjee ñu tëjee ko nag ci bii àtte bii ñetti fan yi waaj da koo dajale amee ko julli mu bëgg koo fay nee na ni mu koy fayee mooy bu fekkee suba la da koy julli ñetti yoon tisbaar da koy julli ñetti yoon tàkkusaan mu julli ko ñetti yoon timis mu julli ko ñetti yoon gee mu julli ko ñetti yoon pour dabu fay bi ndax pay boobu baax na bu fekkee baaxul nan la koy fayee. waaw d'abord maanaam ni nga ko lebee noonu nga koy fayee kon moom ni mu ko waxee lebewu ko noonu maanaam ni ni nga lebee mooy lan xoolal suba tisbaar tàkkusaan timis gée suba tisbaar tàkkusaan timis gée muy deux jours suba tàkkusaan timis tàkkusaan tisbaar timis gée muy trois mu doon trois jours yi mat noonu nga koy. fayé kon da ngay julli suba julli tisbar julli takusan julli timis julli gué waye kenn do wax suba suba suba takusan takusan takusan, ti déedéet kenn du ko def da nga nan suba tisbar takusan timis gué nga do ko def nono noonu ngay def nga fay ko légui nak bo démé ci dari ndax affaire bi da am da am fo bu fa tollé limba may nañ la légui nga bayyi bor bàyyi bori commencé di julli ànd ak nit ñi di fay ndànk am na boo xamante ni bu fa tollee benn lim kenn doo julli li teew maanaam doo ànd ak nit ñi di julli mais da ngay fay bori ba pare doo ko ànd ak nit ñi di julli lim bi ñaata la nee ma ñaata la. kaat jëm kaw tey boo amoon bor suba tisbaar tàkkusaan timis geewe jot waaw bu matee kaat yow boo ñëwee ci geewe gi yaa ngi dégg da ngay and ak nit ñi julli ge bo paree nga fay sa suba fay sa tisbar fay sa takusan fay sa timis waye bu fekkente ni nak ci timis la yam yaangi deg timis la yam ñu noddu timis ñu ne la bul julli timis sa yoon ci timis parce que amna lim bu nek sa ginaaw da nga julli kon legi da ngay julli suba julli tisbar julli takusan doog julli timis ndax yaangi deg noonu la ñuy fayee mooy sew sew bi gën a garaaw xam naa dinañ ci dikkaat. incha allahu taala. fa tabarakallahu macha allahu mbokk yi waxtu yee ñu dab eh, technicien yaa ngi signalé eh, mu nekkoon seen émission leeral sa diine daanaka li fi jot a dugg oustaz leeral na kem kàttan gannaaw bu mu làmbee ci laxdar yu jàngo ñu nan la ñuy tuubee ak na ñuy delloo suñu borom bi subhanahu wa oustaz xana dañ dédé lo kàddu gi rek nga sanni sa kaddu gu mujj sant gërem ndax auditeur yi ak yi nañ la wa wa fa tabarakallah khairul umuri khawatimha tubaab day faral wax ni ki commence bien fini bien wa si tu bien si tu dis bien wa ndax boudé da ngay wax lu bax bo commencé lu bax da nga mujj lu bax bu fekkenté nak nag lu bax ndonte da nga commencé lu bon mané amul problème day mujjé lu bon ñoo ngi ñaan nag jàmbaar amu fi ku yàlla jàppale ndax wama utitu minal ilmi ila qalila xam ne ñoo ngi wax waaye am na ñoo xam ne gëm naa ni wallahi ñoo ñu ëpp xam-xam toog di ñu déglu ci lii bu fekkente ni dafa am gàllankoor ah tabaarakallaahu ci ñun la bu baaxee ci yàlla la ndax lu fi baax yàlla la ku baaxal yàlla la lu mat yàlla la kon ñoo ngi gërëm suñu soppee yi nga xamante ni ñoo ngi woote di poser seen question na gën a bari ku ko mën a envoyé noo ko mën a envoyé envoyé ko incha allahu xam naa sëriñ bi dina leen jox numéro bi nga xamante ni ci lañ koy jàllale question yi lu mu gën a bari gën am njariñ ndax yenn saa yi nit laaj laaj gi muy laaj laajal ko boppam mais da koy laajal ngir ñeneen kon yàlla yàlla barkeel soppe yëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan ci yàlla yàlla yàlla doolu jàmm ci réew mi doolu sutura bi jaay Seydina Muhammad saxal ñu ci diine leeral suñu xol ci barke Seydina Muhammad wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ mbokk sëriñ Babacar Ndiéguène neex a bëgg. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu jërëjëf oustaz Babacar kontaan nañ ci kàddu yi kontaan nañu ci leer yi lii moo doon seen émission leeral sa diine képp koo xam ni bëgg nga laaj mën ngaa woote ci bi numéro bii 77 961 33 33 77 961 33 33. di ngeen jot sen mbokku talibé sen ont mu jël question bi inshallah ci émission oustad Babacar dina ko ñu ngi gërëm yi eh, Moussa mu ngi di liggéey liggéey bu am solo soxna Ulay ci ba ñu ngi koy gërëm ak toute l' de prestige di gërëm nag kilifa gi di Pape sonnul tàyyiwul noppiwul li jëmale Cees kanam jëmale Prestige kanam waaye jëmale lépp loo xam ne nekkoon askan wi la di leen gërëm di leen sant di leen ziar bu baax a baax di leen balu ak di baal eh, di ñaanal itam suñu mbokk yi nga xam ne tey jii le 26 ci la ñu daane woon ci bato boobu nga xam ne mooy le bato la di ñaan yàlla yàlla yërëm leen te jéggal leen eh, bépp boo xam ne eh, natt la boo xam ne suñu boom daan na ko te jaam mu nekk natt boo xam ne natt bu rëy la. كنامو أدنى يالنا في جد يالنا جت أدنى بي دين نيو دين سنتة دين جه دك ديه كبرن ليرة سدينة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كسبت ربنا لا تؤاخذنا